nuyoo sénégalais yi ak àdduna bi ñu ngi lay ñu ngi lay seetaan ci ci Seneweb TV euh, ak ci site internet bi seneweb.com ñu bàyyi la nga nuyoo euh, laataa ñu lay masawu ki nga xamante ne nii ñoo ko bokk muy Ambroise Gomis. maa ngi nuyu ñu ngi mm-hmm. la bés mm-hmm. man bi ma ko yëgee ci suba ba tey sama vraiment bouleversé. Mm-hmm. parce que Ambroise Ambroise de bi mu ngi doon jàppale man sama xarit la woon spécialement ñu mm-hmm. Sénégal yi bi ko commencé di organiser mm-hmm. bu ma yeboone ba bi mu ci génne maa ko daa président ñu mm-hmm. jaara ma jaarat moom fu ne voyagé ak moom di dem di li nag non seulement dafa def promotion woo ñu styliste yi hmm. mu def aussi promotion wu mannequin yi ku hmm. mannequinat excellent hmm. yàlla bakkanam la bu ma yeboone li mu liggéey ci culture ah yàlla nag baratawu ko subhaanahu wa taala mais yaakaar sama yaakaar jafe na mu am remplaçant ci li mu def ci culture waaye nañ ko gis yàlla rek mm-hmm. moom moo ñu ko joxoon mm-hmm. te yóbbu war na ko mm-hmm. te kenn du xëccoo ak waaye waaye waaw Adja bi euh, naqar bi kawe na lool euh, mu ngi mu ngi feeñ ci baat bi sax mais xibaar bi yow naka naka nga ko yëgee. internet. maa ko yëgee ci réseaux sociaux yi. tey lu xew. moo tax luy xew rek jàmm tey. lu xew à la minute mm-hmm. le monde entier est au courant mm-hmm. parce que les réseaux les réseaux euh, sociaux sont suivis partout à travers le monde uh-huh, uh-huh. foofu laa ko yëgee dama uh-huh. taal sama téléphone rek mm-hmm. ñu def décès de Ambroise ni duñ moom pas possible Ambroise ñu woon ci basket bi Ambroise ñu woon luy def kuy promouvoir doomu aadama rek ci tekki tànkam sawar mm-hmm. lool mm-hmm. ni Sénégal amul dëkk bu ambrage demul fanaan fa ñaari fan ñetti fan pour organiser ko mm-hmm. te mënoon na ko ci dina fekk loolu yëpp il le faisait propre man day jaxate du ko naa Diakhaté Diakhaté la beneen beneen laaj beneen laaj bi Juma Dieng Diakhaté may rappelé moom lañ nekkal en ligne euh, beneen laaj bi mooy euh, bi nga koy bi nga koy mujjee gis nan nga ko gisee woon ak euh, wérgu yaram nan nga ko yëgee woon. ndeysaan sama atelier la ñëw. Mm-hmm. daf ma téléphoné dama yaa ngi mm-hmm. ma ko waaw ne maa ngi ñëw. Mm-hmm. bi mu ñëwee mu gaare ci oto bi ci bunt bi. nekk ci biir oto bi toog. ñu woo ma ma ma encouragé lay seet. wala nga ñëw muy ci oto bi wàccul moo génn sama bureau dem fekk ko ci biir oto bi hmm. mu ne ma jaxate man day gis nga ni ma mel mënatu ma dox mu ne ma ambulateur laa yor léegi di ci dox mu ne ko amuraay hmm. tooñ nga ma doon hmm. soxlaa nii nga mel ni waroo woon a waroo woon a ñëw atelier da nga waroon a woo ma ñëw sa kër mu ne ah bëgguma la déplacé ma ne ko ah kay yow jaral nga ma déplacement ni ma la gisee vraiment boo ma woowoon damay ñëw ñu waxtaan ci oto bi chauffeur baa ngi dawal oto bi moom kar dawalu ngi ci gannaaw toog ñu waxtaan waxtaan waxtaan ci laa ko gëj gise mu waaye sama xel musul jógee nag ci moom musul jóge ci moom rembourage tey dama koy jaale soxnaam su baax soosu Viviane mais mm-hmm. Taylor ci mm-hmm. man a kinaa bi ci mm-hmm. dëkk lañu la woon Viviane ma di ko tooñ bés boobu ñu ngi doon bu ñuy wax ñaanin bi li ma wax war na waaw ñaani night mu defa ñu defa défilé ñu xool Viviane ko xool ku ko Amran yow xale bi moom loo loo ci wax mu jur ma kii kay moom mm-hmm. gis naa mën a kenn taay waaye kii dafa jekk mm-hmm. ñuy dem di dem di dem ba mu xaritoog Viviane ba xëy takk Viviane ma ne ko xamoon naa fi ngeen di mujj ba tey dama mm-hmm. euh, a dafa mës a bëgg dafa mës baax waaye jiit yam mm-hmm. gàcce ngaalaam mm-hmm. dakk taxawu mm-hmm. dakk taxawu maasa maasa yaay maasa maasa xam naa dañuy dañuy rappeler ngir bu baax dañuy bu baax la jëkkëram feebar jógewul ci wetam taxaw ko bu mu génn àddina yàlla ko yàlla fay li mu def ci jëkkëram def ko ci njabootam yàlla na ko ko yàlla fay di ko jaale yit mbokkam yëpp mbokkam naa benn sëram di liggéey ànd ak naa ñu di ko wax xati baax ñoom ñëpp maa di jaale am ko am di ko jaale Sénégal bi di jaale surtout nitu média yi mu bokk loon mécc bi ñoom ñëpp maa di jaale Ambroise yàlla ko yàlla xare ak ci Ambroise bi mu liggéey ci kaw suuf yàlla ko ko yàlla fay fokk mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ak mbooloom jullit bu mu fay na xare àdduna ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak barke àdduna ju tedd ji mu dem lii moo lay waxoon ne Ambroise nitu yàlla la hmm. yàlla na ko yàlla yëpp taxal ko amiin amiin amiin maa maa maa ñu ngi ñu ngi jéggalu Jumat yang jaxate moom lañ nekkal moom lañ nekkaloon nii di waxtaan moom di rendre hommage ki nga xamante ne nii moom mooy Moïse Ambroise Gomis nekkoon animateur wala présentateur bu mag fële ci radio télévision sénégalaise en même temps nekkoon initiateur wala promoteur bu mag mak ci li nga xamante ne nii moom mooy Miss Sénégal Miss yu bëree bari moom moo leen génne fii Sénégal wala styliste yu bëree bari bu ñu leen xamee ñoom ñoo tax entre autres Jumat yang jaxate bii ñuy waxal nii Erika Oumou Sy Khadija Sy Adja Sy Mimi Bass entre autres buñ koy lim duñ fi jógee ci li mu def ci promotion culture mais tey laaj bu mujj bi yaay booy moom mooy euh, ak corona bi yëngu-yëngu jamono fi mu toll mu jógee fi nii mënuñu ko rendre hommage mënuñu ko gunge gunge bu mag bi mu méritool loolu lan la la def. metti na metti na mhm. parce bu dul woon corona te ñëpp bëggoon alquran te tamit si ñëpp bëgg alquran malaaka yëpp ñoo bëgg alquran mm-hmm. et c'était réciproque avec lui mm-hmm. mais nag yàlla dogalal mm-hmm. xam nga mbas bi wàcce ci suñu kaw teguñu ko suñu bopp yàlla subhaana taala moo ñu ko wàccal te moom rek moo ko fi mën a jële ñuy ñaan yàlla mi ñu ko wàcce nag mu wàcc yërmandeem ci ñun te surtout mu jéggal ñun bu ñu jéggalee rek mbas mhm. mi dina dem mhm. Mhm. dinañu sax jërëjëf nañu seetaat nañu seetaat suñu bopp bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaay booy maa ngi lay gërëm xol bi xol bi tooy na boobu ba léegi wax ji sax pour mu normal euh, kii wul voix bi aussi ñu ngi lay comprendre bu baax a baax mais ñaanal aussi ñu tëdd feebar yàlla na leen yàlla tëdd seen bopp amiin amiin moo xam na corona virus bee tax ñu tëdd ak leneen ak leneen moo tax ñu tëdd fi ñu tëdd tey te mënuñu seen bopp dara. jërëjëf jërëjëf yàlla fëgg seen bopp. jërëjëf xam naa dinañ amaat dinañ amaat beneen jotaay parce que rendre ko hommage du xaj ci lii kese. dinañ amaat beneen jotaay rendre ko hommage ci Seneweb TV ak Seneweb point com yow it lay jaajëfal bu baax Juma Dieng Diakhaté c'était Juma Dieng Diakhaté à l'appareil yi moom lañ doon rendre waxtaane muy rendre hommage ki nga xamante ne ni moom mooy Moïse Ambroise Gomis mi fi jógee tey suba jërëjëf Diakhaté